طبيبي قريب هل سقامي mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi mbir mu doy waar xewee ca Thiès mu bokk ci njabootu jëwriñ bi di biram Souleye Diop ni ñuy nijaayam la sax moom lañu ñu daal di faat ca nag guddi aljuma ñaar fukki fan ak juróom jàpp samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier atum 2024 moom vigile bi di wuyoo ci turu Assane Diop mu am lu toll ci juróom-benn fukk attaque juróom daal nañu koy rek rendi ñetti bandi yu nekk ca marché ngelaw foofe ca Thiès ñoo def li nu mel moom nag ñu ni sax nag ki ñu faat nijaay la ci ki nekkoon maire bu commune Thiès Nord di Birame Souleye Diop mbir mi rek daal di xew nag ginnaaw enquête bi nga xam ni rek élément yu gendarmerie centrale bu Thiès ubbi nañu ko ngir nag daal di topp waaye tam jàpp ñi nga xam ni ñoom ñoo def ñaaw teef bu mel bu ñaaw boobee bi ñu yegsee rek ba ci résultat yi ñu am ñoom nag commissaire yi nag daal di nañuy lu jëm ci li nga xam ni rek moom la ñu am ci ay résultat ak nañu koy rek daal di jébbalee lu jëm nag commissaire bi ginnaaw sit bi di ñu xamal ni nag malfaiteurs yooyu maanaam ñi def li fu ñaaw def yooyu yëpp. ñoom jàpp nañ leen enquête bi nag ñoo ko doon daal di wéyal moom vigile bi di Assane Diop ñetti ah, ca defkatu te fi kon rek ñoo ko daal di faatu foofee ah, ca nag capitale Biray ca Thiès commissaire Malick Kane chef bu police judiciaire moom itam rek daal di nay dugg ci mbir mi ginnaaw ñett ñi mu jàpp ni kon ñoom ñoo def mbir mi nekk lu doy waar ak complicité maanaam rek ñeen ca àndal ñi nga xam ni rek jàpp nañ leen bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi di waa Seneweb ñu nu vigile bi nag foofee ca marché ngelaw bu Thiès la nekk rekk moom Assane dañu ko bett sax nag ginnaaw ñu bëggoon rekk dugg ca fa nga xam ni fa la nekk ngir bëgg ko rek cambriolé nag ca noonu lañu ko daal di faat def ñawteef bu doy waar boobee daldi di rek jël la fa nekkoon itam daal di koy yóbbu. tax na sax ñoom tamit rek ñu yóbbu leen ba mbir mi amee fa nga xam ni fa dañ ko defee ngir nag ñu retracé mbir mi waaye nag ña ànd ak commissaire Kane sûreté urbaine bu Thiès ak enquêteurs yi ñoom àndoon nañu itam seen natango ñi nekkee ci police scientifique ak technique ngir ñu xool procédure bi ak lépp loo xam ni rek moom la def ginnaaw nañu ko fàtte ak na mu demee film bi yëpp nag ñu tegaat ko ngir nag ay nataal yooyu bu ko defee ñu mën ko wéyal gannaaw lanket yi nga xam ni rekk ñoo ngi koy daal di amal boobu léegi ak ñi nga xam ni jàpp nañ leen ñu ngi kon ñu nga garde à vue foofee nag ca commissaire sans commissariat bu Thiès jëm ci association malfaiteur ak faat doomu aadama yawmil muqaffal mushaffa arani idha